ala ten dina demee noonu bari jaara nin kiyan da na ne ren bu baax amira governor ko 15 farms youth farms euh, dole ya fa waaw youth farms ha ako 15 farms ak juróom bari alma fo kunku dool bu jël der baraka siatal waaye waxu leen yeneen tool yi ñaata la waaye ngeen ne bari ñanta kala wala ñaa noonu la war a demee jaara koto koto ma mu ne jaara bu njëkk ba wala mu foot basket gambia foofu moo nekkoon buntu ngi réew mi fii sax réew mi na mool na euh, wulal suñu waajur yi fii ika botten daato dañ daan jógee ci teeru bi buntuŋol samba santoto ñu yóbbu ay mbir ci euh, kaw gi ikat taaw ikat buntuŋol tara farintab ñu fekk sàq yi fees yeye mano bonna jena jele fa malo indi ko fi of course wato sedo ma yerwa ko asiro yerwa ta nyamen sanyi ce jamano joje nak mbey mi nim jeme kanam ni melu do non kato sene kolengo la be kere ju jafela dabo jang daba jang bobu da nga dan tiye daba jang bi president ye mobe ke tubabo def na ñep tubab hectare hectare ol kafuta legi hectare yok na be yerwata yi place yeb yok mol yerwata nyamen seno yerwata wala ñi ni jeme kanam non la mbey mi itam demee kanam oto bi ngalon jarak kununkooma be muruna noto na jara nam melon barki demba dina delu buntuŋol be faalale sa xay dinañ fees ko président laftala ñami comme ni ko président bugee adum fana e eh, mol ka fo bu daan wax ne maalo bu magge mani kuto dron ko daan maalo bu bees rek bu magge bi ñu yóbbu ko yéen ala bo wekkelale yàlla kaatu président fere jamale la bu bari la eh, teral ci agriculture ya fa jan nañ ko aya tala ke afantati daf ko jël ñam comme ni mu jëlee courant bi def ko ani bunda ak yeneen ni mu war a doxee ci da se kino ñama su ko defee mbir mi liggéey bi mën a aw yoon ngalo be murun na wol tul xam naa dinañ ci yooyu ndengalo ñinam bes dempente wondo mo man xam ko famata do wala yey na geñ na yey dempete ah ko même bu ka sen ho ke banjuli bi na taro waa banjuli dinañ dem uti dempe teng woto ñinan ɓe dempe teng o dinañ yeey dempe bu baax eh ntelata alla senola la man gomna sen liggey mbey altani yankuba ko li fatata ah sen bosak yankuba utena kasi jana ka fon nakun ko be jana di tok fi di wax ne suma tol ba nga salum be salum ba nga salum itabe sirin KMC yow yaangi tok KMC checkbook <laughs> <laughs> la e mu ne keneen dina la nax de ah, woto altol mbal tentu la mbal je wa elar ma ngi leena ni kewol kebal ndaw ñi mag ñi ak jigéen ñi musol do niwol ye tentu président ate banna mu jigéen ñi nak président suñ la gërem térémé du jeex wala nante labanta wala looloo tax ma mujjee foofu kaatu musol ngir jigéen ñi kabirin cuk depuis cuk hani dool fan kéemal ka ke opposition la te man la fi man sukunda jëlee bu ñoo seen jëkkëri opposition lañ bëgguñ gis ko yaaya drum waaye ñoom ñu ne yaa jàmm waaye futu jamaale banja loolu am nga witness ay yu bari yu jamaale ku yandi jam am na ke yu bari yum naqare bari musoo waaye jigéen du laa dula janne je sometimes dangaa gis fuy sori ëllëg baa jëla wo alpha dool maa jënu ma gis ne yeneen kilifa yi gisuñ ko woto alpha na alta ndimi la kon nag kilifa yi du ngeen ko rëccu ah alpha o yaa fan yéen sax wax ngeen ko alko bii santo musoo ni tenda musoo ni e jibee bee kili ngeen ne tey jigéeni teeru bi ak kaw gi du ngeen de mun a xam laari wala ñaa noonu la demee adun ku jambaabe jaatu te lu bareng ci kanam bii bii bii jaata kende mu ne tey tey wérgu yaram musoo naa dingo jigéen ak doomam isitaal lopitaan dinañ dem lopitaan ani musu konomaal ak jigéen yi ëmba ite feeñ jool fay dara nenema o moy dula banku do ko dega ci ben rew banku len nané ja ali nga be amna rew yu ñu wor fi ñu ngi dendo mo jama ka bu banku dolte kana jaroro gambe ja joge ci yenen rew di ñew di faju sente fo ala soné dara taxut lu moy nim yo sol bu ka fen jo anin dinnu ñen ni dañu fay dara gu anin dol be fen jo la 5 dollars ci kewol ñu fay dara gu juromi dollars la muna 5 dollars wose boro di noy la ndax 5 dollars muna la me ani paracetamol ni koy basan même paracetamol soko bugge jënda wato nga ala tentu nga kon ñu sante yalla bu baax bi jaral bu ndal be dula bet tay bunti wirgu yaram gi mu ngi fu nekka e eh, jaral bunda ba fele soma soma am na lopitaan bu mag bunda côté ngol be je fango to kiyani jaar ak banka sang fa itam ci wàlli dula man jam fa côté kene ba ko ci loolu sant ne ne karango fa kayinta ban su waxee njàngam mi du eh, sa doom ju jigéen dafa jàng ci sa ron wotu mom bu kala ye karam baawon ka silale nitata tendata be kala met ndandi olu ñu jàngi bii ala tentu annabi waaye ren sant yàlla fi mu nekk sant yàlla bu baax ah bii waaye leer ay jaahiliya bay banko kan ñàkk a jànga de dàq na ko kaatu moo bee karant fi mu nekk ñëpp jàng nañ baaw ala fan ko xam ni ni itel loon nay man itel loon no lay man karan yàlla mu ne dooma mun a xam su fekkee ni jànguloo woto eh, karan kon njànga akumaata la am na solo trop a daabi alabatoo la tu ah, ci bokk jaamu yàlla la bokk dool ko kiyan ni jaara walla labantinaa la ñenn ñi ne kiyan ak jaara ñoo mujjee maa fo kiyan muumee jaara muumee waxuma kiyan yëpp jaara yëpp nte fan nte fee jaara doo man dama ne jaara beneen jaara même mu jaara central in Kiang Central Kiang Central wol mo APRC ñoo APRC la ñoo mooy bal yàlla bi jeenu dafa meloon ni ñàkk keta nun dong réeroo teema ñu ni neen naa koleata faa mu ngi nekkoon Kiang West wala koleata nu waaye a bari mene je koleyandi waaye lana jafe lool dool be tubaabu duule nu mu amoon ñu nekk dool be siirin kombo janne ñi toog kombo ni siita waxtu sànni kata mool xakkiloo jaxas jaxas bari bi wala naa ta fali waaye tey ñooñu ñoo ñëw wéccee jamaa baa mu fon ni nkew la sax ndaw lañ woto nga alla tentu nga àndal kon loolu sant nañ ci yàlla bu baax tooñaaje bii gis nañ dégga aɗa man tarde te tardé wut annabi laay nuro la kulunge dunta jebbi gaale annabi naay e yàlla aar ko eh, woto mbaal tentu la mbaal jeex maa ngi leen a sant di leen gërëm eh, kumo kuma laale kumo bee waa waaw waxkat yi wax nañ wax ji yëpp ni koom ko be président fango jaylanta banna ja añaa bee fole gërëm président yëpp dafa li aɗum suwo kutale yëpp te guddi na ntol semaine kenoye ñun liñ ko mun a defal c'est mm, doye dron ñaanal ko rek nga ñiŋ meŋ hamee eh, ñiŋ karite fayoto liŋ mébét ci sànni karta bi ŋa timmandi ñu eh, motal ko wala mu jul jooti loolu moo di ñu fey ko boram ah ntol duŋ gambiyankool ŋa men nu loŋ gambiya senior sincere gambians waa gambians yi nga xam ne dañ déggu i ka juloo jol dañ dee fey bor de definitely ngalon kal bajo la dañ dee fay bor trop katu ni même maajo a hakko bee ngir soo ko feyut a xama ate wati la fa du la du la jik woto kon nag nga juloo jo a ñaama nañ leen xam naa dinañ ko def woto mbaal be tentu la a sant mbeyam fo di mbaal jaay leen gërëm di leen sant te ngalo 90 percent bajo men la comme leen waxee rek xam naa leen jaara ak ni ko ne déedéet waaw waaw haalamu de suñu ne waaw waaw rek la laata ko yi ko ko ha te gëm naa ne nangu nañ ne waaw woto mbaal tentu la mbaal jaay maa leen a sant di leen gërëm wasalaam Euh, sayemba min ke la léegi li ñoo def si albem maa koy lal de di ngeen ma dimbale division dool yem maa koy le yeneen division si dimbale woon nañ ko saye maa long léegi xaw ma ni mbaa la su ma wax lefte laal yem maa koy dama bugg a ngeen dimbale ma moom mooy miin long képp loo xam rek yaafoo foñ nga wax ma ko yow mbaa commencé la dinaa commencé nkanaa min kumandi ki maa oosi i ka fàttali baabili mansa moom la ñuy wax baabili mansa nkana min kumandi kima osi atelom bayol famati moy papi bayo yi alim makoy kumane Jambe kila ngakudi badamari tambangara bali kunani bangali ni ila sioni bite ama amake gambie limisani amake gambie komata